Euh, ba tey rek euh, soxna Ami sama euh, cadreuse ñuy wéer rek li nga xam ne moom moo di 8 mars bi nee naa leen rek fi nga xam ne lañ ñëw moo di D-Média ñu toog ak ki nga xam ne moom moo di Mame Mbaye Ndiaye moom nag xam ngeen ko ci journal yi nga xamante ni moom lay def ci fii ci Sen TV xanaa rek dama koy daal di bàyyi mu nuyoo bu ko defee rek mu daal di lancer message jigéenu Sen TV Mame Mbaye maa ngi maa ngi lay fay di nuyu waa jàmm ji info ak suñu mbokki internet yi nga xam ne ñoo leen tàmmu euh, ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ndax lu dul jàmm doxu leen ci. Mhm. jàmm rek ngeen di dox <laughs> ginnaaw loolu Mame Mbaye ñu daal di fi fekk jigéen su man góor mu di euh, Didi euh, ginnaaw bi rek bëggoon naa xam sa relation ak moom parce que dégg naa moom ku bëri cëfër cëfër la. <laughs> xadaram lu ñu leen ci wax rek bàyyi nañ lu bari. <laughs> waa <laughs> mais ak mbaax la nag ci moom euh, parce que euh, Didi bi ñu ma boolee moom matinal ba léegi je pense que léegi ñoo am deux ans su ma juumoon parce que man euh, matinal 2015 ba léegi maa ngi ci. du coup moom deux deux ans ngi nii wala du ko ëpp ñuy yeewandoo fajar yaakaar naa ne ñun ñooy ñëwandoo fii toog fii. Euh, ay 4 heures du matin surtout nga nekk jigéen ñëpp dañ doon wax ne et eh, est-ce que Didi dina ko man fajar gi góor rek moo fi daan ne est-ce que dina eh, parce que c'est pas facile aussi nga nekk jigéen war a teel a yow du coup 3 heures war na fekk nga jóg. oto bi da lay ñëw jël si la muy défi bu nga xam ne ni début bi ñu bëri dañ doon wax ne Didi du ko man mais mu relever défi boobu ba tey Didi bu fi nekkul dafay dafay manqué dafay fenc suñu production à l'antenne mu nekk euh, jigéen bu nga xam ne ni jigéen bu man góor ci biiri ci biiri góor yu nga xam ne tamit euh, dañoo bëgg lu yomb sama genre gi ñoo fi ne ah, nga man moom ku ma xool xam ne maa yombee laa dëkk donc Didi bu ñëwee da ngay gis ma defar li may defar ñoo jox ko euh, papier yi bàyyi ko foofu de ne di Didi lu ci manqué rek envoyé ma WhatsApp xam nga bu fekkoon ko ku nekk ni euh, bu fekkoon koo xam ne ni peut amuñu benn complicité dana man toogal fii ba pare nga contrôler nga vérifier ndax li ma compilé baax na mais dama koy sànni compile bi rek euh, conducteur bi rek wàcc ne ko lu amul rek envoyé ma WhatsApp li amul comme ça à l'antenne xam lan moo lan moo amul et puis mu nekk diggante Ndiaye ax Diop. mu nekk diggante Ndiaye ak Diop su loolu weesoo xam nga ni kuy génn télé da nga war a correct Didi su ma paree man du ma jaar sans maquillage man man man depuis at a ngi nii euh, du ma de kenn du ma kenn du ma jaar sans kenn du ma maquillé mais du ma wàcc te Didi du ma xool day jékki-jékki génn si poset bi lu am di wasatuñ génn pañe am der pañe wu bu ko defee balaa may dem léegi dama ko tàmm. Mhm. damay ñëw rek taxaw Didi mu génne jox ma ma diw sama tuñ pañe sama bopp parfois sax ma nekk. ma xool saag gis parfum bi man dama bëgg a parfum ma nekk ma rucce parfum bi parfum wu sànni ko ca saag bi dem du coup dafay jouer ñaari rôle ci man damay accompagner sama liggéey mais côté esthétique xool ndax man à dama correct wala déet Didi daf koy jouer si rôle boobu ci ci man. dafa bëri xadar ok jigéen la jigéen dafa bëri xadar mais xadar boobu moo ñu neex ci moom bu ñëwee sedd sax dañuy jaaxle donc xadar googu mu nekk nii naka yokk. lu ma ko yokk doyul parce que loolu moo ñu neex ci moom. <laughs> ginnaaw loolu ginnaaw liggéey bi seen man relation nga am ak moom. Euh, di dafa nekk koo xam ne nii même de delà liggéey bi gis nga su ma su ma ibbee def naa Instagram la moom moo tax ma xam ko man seer laa ku ma xoolee foog na toj naa dëkk bi mais xaw ma dara. moo ñëw ne ma mais yow yow Instagram xam la ma ne ko Didi man application yi kay baax na xam nga mu ne ma del del ubbil Instagram del deel dugal photo xam ma la nax la ma ne ko Didi mu ne ma professionnel yëpp dañ ko am. xam nga te bi ma koy boobu nekk ma boobu wàcc nañ sax ma maa ngi sama kër ñuy waxtaan téléphone ma nekk waa dinaa ko ubbi bi ma ubbee dugal photo moom moom mu njëkk ne voilà nii la. da ngay ubbi nga nga nga bokk parfois ñu programme non te te maa ngi ko koy fàttali ah moom moo ñu ko diggoon ba léegi moom ak je pense Fatima la ne dañuy war a baali ji benn samedi te ba léegi defaguñ ko nag waaw man ñoo ma diggoon dañuy comme man du ma génne mu ne ma dañuy dem waali wala Philippe Montero xam nga moom du ma génn damay xas ne ma nee na man damaa yàgg parce que moom avant mu yëg si damay taal machine bi di déglu ay Ndiaga Mbaye billaay Ndiaga Mbaye wala am na ku may déglu am na Assane ñu way yàgg yooyu man loolu laay déglu fajar gaay 4 heures du matin ma ñëw moom laay taal fii nekk di compiler le temps muy ñëw xam nga te moo ma diggoon Philippe Montero moo ma diggoon Wally Ballago Seck dama ko ma ci ban maa ngi nii toog waaw ginnaaw loolu ñu gis ni euh, Mame Mbaye Ndiaye euh, euh, moom pour nga gis li nga xam ne rek moom moo di vidéo am ci réseau social yi dafa dafa xaw a jafe lan la lan moo nekk si ginnaaw Mame Mbaye dafa ragal wala lan mooy problème <laughs> bu ma dugg ci réseau sociaux yi samay <laughs> tàpp Mame Mbaye ba gis sama vidéo yi njëkk yi ma doon def journal sa damay tiit damay ragal xam nga xam nga boo nekkee ci yenn nga nekk lébu bu dul dara sax parce que ñëpp ñoo yem mais ma nekk lébu nekk si benn famille bu nga xam ne sa laa nekk donc euh, man yàlla xam ne dama ragal nga am jabaar am ay doom fësoon naa nag fësoon naa amoon naa vie xam nga nekkoon bi may def terminal man bi ah, ah, ñi ma doon àndal te eh, bi may def terminal sax bi ma amee bag da leen jaaxal mm-hmm. ndax ñun dañoo dëgëroon bopp ñun suba gi lañ daan jàng mm-hmm. ngoon gi duñ ko jàng am nañ fu ñu daa daje mm-hmm. ñu naan suñuy suñuy copine euh, mais après looy gën di màgg da ngay gën di xam ne dara jaru ko quoi dafa am loo xam ne jeunesse sa face boo nekkee xale toll nga ci boo nekkee mag dangay xam ne da nga nekk surtout boo nee ba commencé am ay doom donc mooy loolu da ngay da ngay éviter éviter lu bari donc lool loolu la rek réseaux sociaux yi moom amul benn problème dara mu ci amul ngaañ-ngaañ moom dugul moom dundul bad buzz moom. Euh, jaru ko ah àdduna mu solo fii kii fii loo loo fi am buzz sa moroom am na ko toog toog ko fii buzz amul solo ah man dunduma loolu au fait man boo ma fekkee tëngee sama benn caaya laay sol yàlla mi tim xam na lool soo samay carax xam nga di doxaax moom keroog ma ko defee dakaar fii di dem sama kër euh, pape bi nekk fii xar yàlla soo sama caaya soo sama caaya nit ñi dañ noon mais kii xanaa dañu yeb loolu laa sentir damay soo sama benn sous-vêtement soo sama benn caaya di doxaax moom. Hmm. yàlla xam noonu laa mel loolu laa xam loolu laay dund solo bi nii lii moom a boolee moom laaj ko su may wàcc sama cravate dama koy dindi veste bi dama koy dama koy téye dox di dem. Hmm. donc man anyway aw ma aw ma jot boobu dara méttiwu ma ci. d'accord loolu am na solo ñu bàyyi la rek euh, nga lancé waat message bi nga xamante ni moom ngay lancé waat euh, say jigéen. waaw may profité ci 8 mars bi di souhaiter euh, une bonne fête ak tout ces braves dames yu nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw sans ñoom ñun duñu nekk dama koy faral di wax bu dul woon di di amaana liggéey bi du yegg fii mais bu dul woon suñuy yaay également ñoo xam ne ñoo ñuy gunge suñuy sœur kon nag du ñu toll fu ñu fu ñu toll nii donc maam sama mag bu nga xam ne ni mooy sama yaay Mariétu Ndiaye euh, ñoo bokk ndeyax baay mais mooy sama yaay moo ma fayal jàng moo ma defal lépp moo ma yar xam nga bëgguloon ma ma siphonné lépp lu correct man CM2 mu rey ci boppam jël ma yóbbu ma këram CM2 dama ne mool lañ mooy loolu quoi moo tax sax may démarré fajar gi def révidé yi dama naan maa ngi nuyu a mbokki mool yi parce que ñu si bëri ñoom ñi ma bokkaloon classe ay mool lañu man CM2 ma ne damay bàyyi jàng moom mu récupéré ma du coup euh, du ma tàyyi di ko wax moom daf ma féete kaw féete ma suuf gauche droite lépp moom la Mareetu Ndiaye sama grande sœur ma koy rendre hommage si euh, li nga xam ne moom mooy euh, bés bi 8 mars bi ak mboolem kuy liggéeyee des médias ta nga nekk jigéen yéen it waa jàmb ji info ma leen di remercier mais également di rendre hommage seen mboolem jigéen yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci site bi ku ci yaa ngi ni ma ja